Bebe alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidna wa mawlana muhammadin il amin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen nuyu di leen ziar di jiitatu nuyoo bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di nuyu suñ mbokki internet yi yéen ñi nga xam ni yéenay suivre seen site bii di Diatty TV waaye di topp ay programme comme niñ ko baaxoo def ak yéen dellusiwaat nañ si seen émission jotaayu koor ngir fassiyene waxtane way ak laabire lépp lo xam ni dafa aju ju suñu diine comme niñ ko baxo def ak ye ñu nekkan ci téere bi nga xamé ni mom lañu tuddé al jawharun nafis sëriñ bi radiyallahu taala anhu bindan ko waye ñu tollon ci buntu bi nga xamé ni mi ngi doon wax li yi njàpp mu lim farata yi nga xamni ne akhdari mu abdurrahman al akhdari indi won nako ko ci téré mbé al akhdari waye mu lim ko mu ni juróom juróom juróom ñaar la daali wax ni yéene ci la waaye tamit eh, moo ci jiitu sax waaye tamit naka noonu raxas saxaar kanam loxo yi tamit noonu ba ci conce yi waaye massa bopp bi eh, raxas sa ñaari loxo tamit eh, wala sa ñaari tànk ba ci ba ci dojar yi waaye tamit naka noonu gaaw ci jëf ji nga xam ne yaa ngi koy def mooy bépp farata boo defee nga gaaw def ba ca des waaye tamit naka noonu di joñ cër boo defee nga joñ ko ba nga ba yëg ni joñ ko ko ginnaaw ba ñu war a ñëwaat ci ay sun sunnaam muy sunnay njàpp mu ni faslun ne ab dog la fi sunan ni ci sun yi muy sunnay njàpp sum ata top dik na sunanuhu ay sunna japp sama samaaniye di juróom ñatt raxas lu ko moy sa raxas di ko sa yadan loxo lil ku ay ba ca tikku jare ku nekkal waa yeen di aji wattu ah, inda suru'ika ka fasab tambule wala kaana donte nek na mom ñaar lox yoy ah, maan mboole sen tahiratayn di di aji lap ah, faqfu na nga xenc waxaata nga sammu man ka nga xamne wala nga ni faqfu na nga xencu waxaata nga sammu ilman ci akam manam day lim farata yi nga xamé wala sunna yi nga xamé ni mom mo nek ci eh, mom mom japp mu ni juroom ñatt la daal di ji lim bi nga xamé ni moy fi la japp yi commencé muy raxas ñaari loxo ba ci eh, tikku jare yi sunna li ci japp mi moy jamal bi nga xamé ni mom ngay tambali daal di wax nak donte ni ñaar loxo yi da nga fekk ñu ñu lap set witi bala nga leen dugal ci ndab li nga xamni mom ngay jappo da nga leen wara raxas raxas yoy nga xamni raxasu sunna la Euh, dañuy wax ni bu dee ndab la loo xam ne da nga ko duy taaj ko bala nga jëy dugal sa loxo yi na ko dëngal ndab li ba sa ñaar loxo yi waaye bu fekkee nee ñu euh, xam nga ni yow sa loxo yi set na boo ko dugalee ci ndab li tax du def dara nee na mën nga koo def donte ni xët ndigal la waaye boo ko defee tamit nee na du dara ba tey bokk na ci euh, sunne yi mu ni madd mit na nga galax ni ka daanaka noonu istansir na nga sarax ni ko ka daanaka noonu istansir na nga fiiru warut ta nga delloo masaan masaali rek si ka ñeel sa bopp wa masil usni ak ak mas uh, wala wa ud limeef na masul usni masa ñaar noppi ci farata yi wa jaddi lil maay ak yeesal ndox ma lil usni ñeen ñaar noppi ma an mboole seen wa rattiba na nga toftale alfarda farata yi tokkun kon da nga nekk muttabi'an di aji topp day limaat day lim sunne mu ni bokk na ci mooy nga gàllaxandiku mooy nga gàllaxandiku jël sa loxo dugal ci gémmiñ waaye tamit naka noonu fiiru mooy sa ak saraxandiku tamit bokk na ci waaye tamit delloo masa masa sa bopp ndax buñ ne massa bopp farata la bi dem mooy farata waaye bii dellusiwaat dañuy wax ne sunna la waaye tamit naka noonu massa sa massa sa ñaari nopp yi nga massa leen sunna la waaye yeesal ak yeesal maanaam bi ngi leen di massa nga comme nga bañ a jóge ci bopp bi rek daal di massa noonu directement dañuy sopp tamit nga tànqaa ndox euh, di ci di ci raxasaale sa ñaari nopp yi muy massa bi dañuy wax ne loolu tamit sunna la waaye tamit toftale farata maanaam boo def rek nga def def def ca ba ca topp bii bu jiitoo nga jiital bi jiitu doog caa teg ba top tamit mu lool loolu faratal boo ko defee di nga def li nga xamee ni moom la ñu dig la daal di wax ni euh, waman nasiya képp ku fàtte fardan ab farata na aada yi ci cëriñ jàpp ya fala xukum atte ba fii zalika ci loolee xukumaani ñaari at la yaa na nga wattu fa in njëkku nem nekk na xatta zakara fàttaliko nga ko bil xóor bi ci jege ga faxalahu na nga ko def maa alladi ànd ak la nga xam ni baadu jaraa ginnaaw baadu ginnaaw ba jaraa daw na ween njëkku neem nekk na min baax tulli jamono ci ginnaaw yàggu jamono faaxaloo def na ko na nga ko def bi ni yetin ci ak yéene fal taxatan a na nga fal taxatan yi na nga sonnee xam-xam laakin noonu waaye moom ale yi war na ci moom an yi damu baamu maa la nga xam ni euh, salla julli woon na ko min xabli ci ak njëkkam li tuxaleen ngir ak laab awdiment goo xam ne ñàkkeef na ko dafa indi ay atte yoo xam ne dafa jëm ci lu euh, muy koo xam ne day jàpp da doon jàpp bi mu jàpp ba ci digg nag mu fàtte ab cër boo xam ne cëru farata la maanaam defu ko day wax ne atte boobu noonu am na foofu dafa am ñaari atte muy wax ni bu fekkee da koo fàttaliku ci ak jege maanaam da koo fàttaliku ci ak jege comme masalan mu nekkan doon doon jamono bi mi ngi jàpp bi mu jàppoo ba egsi ci bopp fàttali ko ni man kat defuma ma saaxar kanam xam loolu ak jege la léegi day wax ne bu dee lu mel noonu day daal di wëlbatikuwaat rek daal koy daal di def daal di masaa kanam xar kanam ga bu fekkee yàggul waaye bu fekkee dafay dafay yàgg comme masalan mu jàpp woon ba noppi daal di fàttaliku ni man kat bi may jàpp defuma woon euh, massa bopp wala ma raxas euh, xar kanam boobu day dañuy wax ni day ñëw daal di koy def maanaam day dem daal di defi defi cër boobu mu fàtte woon farata boobu noonu waaye day yéenewaale matal njàpp ma nga xam ne doo ci yéenewaale waaye tamit bu paree dañuy wax ni bu fekkee julli woon na comme tey bi mu jàppoo ba nepp jàpp ba nopp ba julli ba pare day doo ko fàttaliku man kat masaawuma wax raxasuma woon sama xar kanam wala masaawuma sama bopp wala benn ci farata yi rek dañuy wax boobaa bu julli boobaa day daal di dem defe cër boobu nga xam da ko fàtte woon waaye daal di yéene mottali njàpp ma waaye julli gi mu julli woon nag dañuy wax ni da koy da koy baamuwaat ngir ni amul ak laab bi mu koy julli ndax cëru farat bi nga xamee ne da ko da ko da ko fàtt da ko fàtte moom moo tax day baamuwaat julli gi mu ne way intarakta ne bàyyi nga sunnatun ab sunna yaa rajul bu yow waay faati na nga dikkee bi xaa ci moom sunna bi laaj li maa ngir la nga xamee ne yustaqbalu def na ko jublu wala toon yi data du baamu maa la nga xam ne madaa wëy na wa faataata mu faat li annahu naka moom ngir moom sunna laa yubtilu di yàqu asalaata asalaata salaata jullee julli ya wala julli day wax ne dafa wuuteeg àtte bi nga xam ne moo njëkk a ñëw lu jëm ci euh, euh, farata bi bii nag moom sunna la mu ni bu fekkee yow da ngay wala da ngay jàpp bi ngay jàpp ba ci yàgg nga nga bàyyi ab ab sunna maanaam defoo sunna comme jamono bi ngay jàpp nga jàpp ba digg mu la nga xalaat ni man kat woon sama ñaari euh, maanaam ñaari loxoy xar kanam yi comme lu mel noonu ñaari kii boog laa bëgg wax ñaari loxo yi njëkk mooy fi ngay tàmbalee day wax ni kon comme tey boo bàyyee ab sunna léegi boo jàppoo ba noppi sax laay bëgg a wax nga fàttaliku ni yow defoo sunne ba da ngay daal di dem defi sunne boobu noonu ngir julli yi nga xamee ni mi ngi bëgg a ñëwaat maanaam bu fekkee da nga doon julli danga doon jàpp njàpp saan bàyyi ci ab sunna ba julli julli tàkkusaan wono sa xel do te dem te njàpp moom ci nga bëgg julle timis da lay wax ni bala julli wat timis da ngay dem defiwaat cëru sunna bobu nga bàyyi won ba pare ngir nga mën am julli timis go xamni gu ki la ngir sunna sunna gi mën ci an ngir julli gi mën a waye fekke fekkee na len yow ba nga ko bàyyee tamit njàpp mi julli nga tàkkusaan waye do julli timis neñu bu la nexé man nga ko baña def ngir ni amul geneen jaam yàlla goo xam ne yaakaar boko ci njàpp mo te li nga julli won tamit do ko baama ngir ni mom sunna mom du yaq julli daal di wax na wa in nasita nem fàtte nga lomaatan ab Euh, minal badani ci yaram wax irsilaha na nga ko raxas bi ni yëtin ci yéene wax daxaa moom dong isan boobee su ma aleyka topp war na ci yow ton yi da nga baamu kullama lépp loo xam ni sallaytuhu julli woon nga ko min xam ne xas lin njëkk nga goo xam ne war a leef na ko dafa indiwaat beneen mu ni koo xam ne nag da doon jàpp waaye bi mu jàppee ba ci digg mu fàtte ab dëneer ab dëneer bu ñu ko waxee mooy benn tooy tooy ci yaramam comme tey fenn nga gis fenn foo xam ni dafa tooyul ci sa yaram mu wóor leen yow lii bi ngay jàpp bi ngay jàpp defew koon dañ lay wax ni Euh, nga dem lool da ngay dem defaat cër foofu nga fàtte woon waaye boo koy def da ngay yéene matal njàpp ma waaye julli goo xam ne julli woon nga ko ci ñàkk euh, ci njàpp moomu noonu dangay ngay baamwaat da ngay baamwaat julli ko noonu ngir euh, ndax dañuy wax ni mën nañu amoo woon ak làpp te masalan maa doon julli fàtte ni sama fii nii tooyul waaye bu tooyul léegi nag man bu may jullee ma noppi laa ko gis damay daal di dem di ko waaye jamono bi ma koy tooyal damay yéene waale mottali njàpp ma bu ma paree nag fekk na julli woon naa ci ba noppi damay baamu julli go nga xam julli julli julli woon naa ko loolu lu sopp la daadi wax daa di wax ne weyn zakarta nem fàttaliku na neem fàttaliku nga sunna na ab sunna banda suru ginnaaw ab sab fi waji saxal kanam kat seen saaxatin lu mel ni saraxndiku fa laaru ñoa di dellu min xamil tatmim ka ñeek ci ak masal sax matale laakin waye ya fata yow ci am si ata dik na fi zalika ci lolé qul ful ulama yi wute borom xam xami day wax ni euh, ku wute gi nga xam ne moom am ci borom xam-xam ci diggante koo xam ne looloon jàpp ba ci xar kanam masalan fekk na deful ñaar loxo bi ndax bi commencé ñaar loxo yooyu sunna la léegi nag euh, dafa am borom xam-xam yu ni bu fekkee dafa dafa nekk ci cëru farata dafa nekk ci cëru farata moom du dagg cëru farata boobu noonu di dem nan day def ab sunna day konne ne mi bu njàppoo ba pare nak cëru sunna bi nga xamni def ko won mu di koy def ta ñeñu lool mo gëna wër amna ño xam nak nenañ bu fekke mom dang ko faté fàtte rek euh, comme tay nga ñëw ba ci tollu ci xar kanam faté defu ñaar loxo da ngay wëlbatikuwaat def def ñaar loxo do ko konne sam njàpp waye nee wax bu ñëk bi nee mo mo gëna wër fasul li ab dog la fil fadaili ci ay ngeenel mom jàpp amma fadailun ñaa ndaal ay ngeenel lahu ñal nak mom moom fa fat tasmiya ba ci jitu moy nga wax bismillah wa ba'daha ginaaw ba as waa ku socc naa i na nga sori almaasiya euh, mooy day lim li nga xamee ne mooy moom lañ moom mooy ngëneel ngëneel li nga xam ne moom mooy nekk ci njàpp mu bu njëkk ba bokk na ci booy commencé sam njàpp nga wax bismillah waaye ñaareel ba mooy nga socc boo nee bay bëgg a jàpp socc nag am na ñoo xam ne nee ñu jërul ngay wut socc di socc waaye ci biir bi ngay galaxandiku boo jëlee sa loxo mel ni kuy socc bomb sa bëñ yi ba mu set yooyu noonu sa gémmiñ gi nee ñu dina mën a yóbbaale socc bi nga xam ne moom la moom na def ci boo xam ne dikk na ziyaadatan di ak dolli alal ula ci bu njëkk ba fadilatan di fadila fadilatan ibaad di di nga neelu jaamu yàlla aneetu li ma ci jublu fil wajhi saxar kanam ya fa fil yadin ak ñaar loxoñ wa hakaza naka noonu attartiib ak toftale lu dul euh, tey wax ni tamit bokk na ci ba tey euh, ngëneel yi nga xam ne daa nekk ci njàpp mooy bépp raxas boo xam ne da ko raxas te bokkut raxas bu njëkk ba rek dañuy wax ni euh, loolu euh, ngëneel la comme tey ñun la woon masala ñun la sa xar kanam donc boo koy def da nga koy def ñetti yoon léegi nag yow dañ la bu njëkk bi bu fekkee tooy ne ba mat sëkk

Eh, bopp ba al muxtaar ba ñuy ba di taa ba di ba di bu ñu aajawoo aadawoo fii masin rasika ci sama saa bopp bi laqtisaadin ci loolu jub wa xillatul maay ak néewul ndox alal awdu ci cër bi kadaa naka noonu taqdim yu naa ko jiital sam day joon alal yu saa ci càmmoñ ba xusaa jàppal day wax ni ba tey nit ki bu dee bu fekkee bu dee daa ko koo xam ne lel bu mu sukkandiku ni man de sama leel bi fii lay nekk fii lay commencé déedéet na tàmbulee fi nga xamee ni moom lañ sopp kuy euh, bopp maanaam bopp fi nga xamee ni fi la commencé karaw fa la baaxoo saxee euh, mu commencé foof noonu ci am am masaam dem bi ak bi ak dikk bi yëpp mu commencé ci cat la waaye euh, mu commencé ci commencement bi waaye buy ñëwaat tamit mu commencé ci cat li ñëwaat ba ci tàmbalikaay bi waaye tamit na ko bokk nañ ay ngëneelam mooy mu néewal ndox nga xam ni bu fekkee tilimul lool mu xool lu tuuti lu ko mën a doy waaye am na ñoo xam ne dañuy tilim léeg-léeg léegi ñooñu nag moom faaw ndox mu xaw a sakkan moo leen di arrangé waaye néewal ndox mi daal moom ci ngëneel yi rek naka noonu tamit cër boo xam ne daa am ndeyjoor ak càmmoñ ñu la nga jiital ndeyjoor bi ci càmmoñ bi tamit naka noonu ci ngëneel yi la wa xalilan ak na nga xalil asaabi'al yadayni baaraami ñaar loxee xaataman ci liwaar ooy saxab def na def na sopp fi rëj leen ci ñaar tànk yi waaw jëbu waral nañ waaw wala mu ni nga ma ba tey nga xalil sa ñaar loxo yi comme tey booy jàpp nga def nii sa ñaar loxo yi nee nañ bokk nañ ci ngëneel yi nga xam ngëneel ñàpp la am na ñoo xam ne nag bu ñëwee ci tasa tasawut sixaar defe na sëriñ bi moom ci farate yi la la ko limee ah am na imaamul aw fii moom farata la jàppee euh, xalil baaram waaye bu dee fii alaxdari lim indi moom nee na ngëneel la ci ngëneel jàpp yi waaye tamit ne ko ci ñaari sa ñaari tànk tamit booy jàpp boo ñëwee ñaar tànk yi comme ni ngay defee ñi ñaari loxo yi tamit nga def ko nii tamit neñ sopp nañ ko moom ci ngëneel yi la mu ni waaw jabu waral nañ at taxlii la xalil ga fil xafiif bi ci sikkin euh, ci aji woyof ji ba tey mi ne liixiyat ci sikkin ba laal kasiif waxumu li ma ci jublu fi lu wudu ci njàpp amal xusun daal ca ngaay euh, faxat yu jëb war na waral na fii maa ñoom ñaar fii maa ci la nga xam ne yajulu dana feeñ day wax ni ki nga xamee ne dafa am sikkin boo xam ne sikkin bu woyof la nga xam ne bëriwul karaw boo ko tollee li gis ba dañuy wax ni boobaa euh, boobaa maanaam waral nañ ko mu xalil ko comme tey nga ñëw rek daal ci romb daal di jaar jàll waaye bu fekkee dañuy wax ni comme lu mel ni ci loolu bu dee njàpp la nag mooy nga ñëw jaar ci jàll xaw ko kii waaye bu dee sangu faratal nag moom dañuy wax ni dafa war maanaam fépp fu karaw nekk ci nit ki rek da koo dafa war jaar maanaam jaarale ko boom ko bu baax a baax waaye bu dee njàpp la tey nga boo xam ne sikkin bu bu bu bu maanaam bu woyof la nekkul bu fatt dañuy wax ne boo kii bu fi nekk di kii ñëwoo rek daal di massa daal di jàll waaye bu dee sangu la moom day da nga jël jël sa temps ndax dañuy ne fépp foo xam ne cëru aadama la te kaaraw dafa fi nekk maanaam dañu bëgg nit ki bu dee sangu mu fexe ba bës ko bu baax a baax ba nga xamee ne ndox ndox ma dana dana fa dugg li mooy li nga xam ne moom lañ leen indi woon ci suñuy jàpp yi waaye ak ay ngëneel nga xam ne dafa aju ci njàpp kon yow mi nga xam ne mu kàllaf nga waaye nekk koo xam ne yaa ngi ànd ak sa xel jour na nga bàyyi xel ci yi nga xam ne moom lañ jot a jàng ndax li tax ñuy indi ay ngëneel ginnaaw bi ñu indee sunna yi dañuy bëgg nit ki euh, maanaam jullit bi chaque jour rek muy bëgg liñ naan bonus waaye di bëgg poromo di bëgg tiyaabam di yokk te ngëneel yi nag bépp boo ci def rek day yokk sa ay tiyaab waaye du ko mos a wàññi wukk mukk di yem ak yéen fii di ñaan suñu borom subhanahu wa taala defu ñu dégg ak topp di wax yéen ñi nga xam ne siibu seen site bi di Diatty TV ngeen woy di ko topp ay ay programme am wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu